reform tribal Terre FM, Tribali. jaajëfal leen bu FM. jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi ci ànd be kolute gi ci suñu kër FM ñaari waxtu jot ba toftal ñaar fukki simili ak ñett mbokk yi dal leen ak jàmm ci li gën a fas ci xibaaru digg bëccëg yi. la ca gën a fës te ñu fas yéene ko faram nag bokk na ci conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne amal nañ ko loolee nag dañoo mer ba futtu ngir rek li nga xam ne coalition Benno Bokk Yaakaar daal nañ ko amal tax rek ba ki nga xam ne moom mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko di woo ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Sall ngir rek mu xoolaat boppam bu baax a baax te bàyyi yéen yi nga xamante ne mu koy amal da ngeen teewlu ci yile jotaayu xibaar dinañu waxtaane itam ab ndaje bi nga xam ne ñoo ngi ko amal ca diwaanu Saint-Louis ak adjoint bu gouvernement bi nga xamante ne moom lañu ñu lépp lu jëm ci wàllu développement ci Modou Mamoud Diop moom mi nag ak ñenn ci ay ñoñam waaye itam ñenn ci autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee ca diwaanu Saint-Louis loole nag ngir rek ñu amal ab comité régional de développement ngir rek ñu daal di ko jagleel ci lépp lu jëm ci wàllu enjeu ak perspective euh, ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu phase du programme national wàllu éclairage public nga xam ni sax njiitu réew mi Macky Sall nag moom moo ko daal ci initié ci lëkkaloom ak jëwrin bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu énergie ak pétrole ji Modou Mamoud Diop. xibaar yi dinañ ko jeexalee ak benn ponk di xibaaru bitim réew yi kon mbokk ponk yaa ngoog nis gis rek ñu yaatal.

ginnaaw bu ñu leen nuyoo waatee beneen yoon kaddu gi di bàyyeekoo fii ci cœur de ville bu Kaolack nu ñu leen ko junjee woon ca ndox ndoxteel ga naka la ñu koy wéyande ab conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan gi loole naka dañu ko amal ngir rek wone seen mer ngir wone seen mer si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa coalition benn bokku Yaakaar loolee nag waral ba ki nga xamante ne moom mooy njiitu Pastef du Ousmane Sonko daal di yëkkate ay kàddoom rek di ñaanaat ki nga xamante ne mooy réew mi Macky Sall di koy woo ngir mu xoolaat bu baax a baax anam gi nga xam ne moom la yore réew mi moom Ousmane Sonko la ñuy teewlu. boobu nga xam ne dañoo bëgg a confisquer suñu vote loolu la ñu ne duñ ko nangu ki may njëkk a lancé appel nag mooy président Macky Sall moom ci boppam dafa am mbir di toll un homme doit savoir être grand surtout nag boo nekkee homme d'état un homme doit être républicain doit rester au-dessus de la mêlée parce que Aduna du dul jeex amut dañ koo jox moom nguur même biñ ko ko joxee ñëpp de d'accord ni votel nañ ko président Abdoulaye félicité ko def passation dem ngour googu ñuko joxone mo moo jeex takk lu jeex jeex na li ci dess moy qu'il fasse preuve de dignité et de grandeur parce qu'il n'est jamais trop tard hein. ñu bëri japp nañ ni il n'en est pas capable ta acte yi mu poser bo beulé fo lay firndeel mais man japp naa ni il n'est jamais trop tard qu'il fasse preuve de dignité et de grandeur on sait ce qu'il vit

on ne peut pas gagner tout le temps du ci football du ci lambe, du ci politique on ne peut pas gagner tout le temps boo doxee nag ba yàlla def mbir mi wëlbatiku bul yàq réew bu ko taal il faut faire preuve de grandeur parce que moom tey li mu war a xool mooy nu muy def ba yeggali ci jàmm waxoon nañ ko fii après les événements de mars dama ne woon du ñu dox vers le palais ñun ñoo wax xale yi ne leen dellu leen seen kër ñu ne dañ koy accompagner mu yeggali mandaam ci nu mu gën a rafete loolu koy bàyyi xel tout le temps doonul réew mi moomu ko jënd ko te gënul benn sénégalais ci 17 millions de sénégalais yàlla tànn na moom jox ko mu mun a def ñaari mandat 12 ans ci bopp réew mi ñaata sénégalais ñooy mun a def un mandat dans ñun ñi fi toog nii ñaata nit amul kenn ci ñun ko am garantie dina mu sa nekk président de la République loolu mbirum yàlla la kon bu ko yàlla defalee loolu sénégalais yi deselatuñ ko dara moom na fexe ba rafetal mbir mi ci ni muy def dañuy desandi ba tey ak moom leader bu Pastef du Ousmane Sonko moom moomee nag mu ngay ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllum justice ngir rek ñu tëddee njaaxanaay te xam ne nag réewum Sénégal moom jàmm bi seen i loxo la nekk ñu teewlu ko moom ba tey usmaan Sonko. Nous wax la justice sénégalaise parce que moment yi suis la de responsabilité justice daf ci kaw de ci Je torop dama wax sànq bi ñuy waxtaan ak Nous avons Fall magistrat bi a décision créer une atmosphère de solennité Si vous avez nit ñi non c'est la justice n'est pas la politique ba pare di jël décision décision politique la na xam ñun daj ci politique ñun caution ñun ñoo def suñu investiture ñun ñoo dem defi campagne dans des conditions extrêmement difficiles ñun ñoo woo Sénégalais yi ni gën leen voté ils n'ont qu'à nous respecter la justice n'a qu'à nous respecter acteur politique yombul de te ñun ñooy système politique bi bu ñu fi nekkuloon politique du am kon nañu doxal yoon ñoom ils sont les garants de la stabilité de ce pays te chaque fois wax naa saa su problème amee ci réew mi bay waaj a tàkk lay am fii temps yële ba ba bay nit dee ci lan la foog nga ni su justice defuloon li mu def tey nit di bakkan dina ci rot du am pourtant ñaari nit la ñetti nit juróomi nit suñu paree dem toog lekk seen ceebu den naan seen bataille loi li wax bàyyi constitution li wax dem wax parce que dañ leen def pression da leen def len loolu nañu delloo si seen xel parce que rew mi jeexul de commencé gul bay jeex ta am na yenn yu fi doon am dotul am ñun menacé wuñu kenn nak mais def lu taal réew mi après toogaat mel ni dara amuloon nga continuer loolu dina jeex ci réew mi kon ñuy lancer un appel à la justice li xew Fouta xam nañ ni loolu du élection y a pas eu d'élection au Fouta c'est une mascarade te la ko andi yëpp mooy ñoom nu ñuy def ba rattrapé wu wax nañ ko suñu communiqué démb parce que ñoom lu ñu def suba ngoon jot fu ñu toog réunion ñun dinañ ko yëg objectif bi Macky Sall sant Antoine Diop mooy fexeel ba egg 82 députés parce que certainement am nañu garantie que dina am kenn peut-être ci plus fort yi peut-être ci suñu biir ñun am nañu leen garantir ni dinañ leen motali le 83e peut-être loolu la ñu am moo tax nu ñuy def ba li ñu amul ci liste départementale yi seen voix ci quotient yi mënu leen ko may naka la ñuy def bay gonfler les chiffres au Fouta chiffres yooyu moo leen di permettre ñu rattraper deux députés ou trois députés loolu mooy exercice bi ñuy def nii moo tax ñu ne justice bi na jël responsabilité ce qui s'est passé là-bas c'est pas une élection te mënuñu koo nangu mu nekkoon Ousmane Sonko di leader bu PASTEF wàllu politique sax la ñuy desandi euh, comme tontu du forox nag waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom itamit daal dinañu andi ay tontu gannaaw seen jano ak taskatu xabaar yi ñu doon amal ni ki àllarba gi ñu weesu loolee nag ki wax ci seen kaddu mooy Abdoulaye Seydou Sow moomee nag daal dina yëkkati ay kàddoom indi ay leeral rek euh, ci li nga xam ne waa coalition Yewwi Askan gi daal dinañ ko wax ne ñoom ñoo gagné euh, fee département bu Matam Podor Ranérou ak Kanel bu ñu sukkandikoo ci moom maire bu Kaffrine nag ma ngay xamle ne yooyu les kàddu moom du ñaawal benn yoon seen victoire bi nga xam ne am nañ ko ci yooyu département moom Abdoulaye Seydou Sow la ñuy teewlu. Nous avons par ailleurs entendu un leader dire oui nous attendons la proclamation provisoire par la commission nationale. dégg nañ ci ab benn leader politique mu dadi di ci proclamation résultat provisoire yi nga xamné ni ñu wara bayé ko ci commission nationale bi saytu wàllub élection yi Ñom sax nee nañ après dinañ def ab recours bu nga xamante ne conseil constitutionnel ñokoy koy saytu rax ci doli askanu Sénégal dinañ xaarandi mo dortu bi xoxatal dogal bi ñuy def du jàll ndax Sénégal ab république bu taxaw la bu am doole sax suñu ay kàddu ñu ngi koy jëmale ci suñu turu coalition bi nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar bu ñu fàttalikoo ci mois de juin ba ñu daal di génnoon li ni mel amoon na fi ci ay menaces waral sax duñu nangu benn yoon ci réew démocrate bu mel ni Sénégal nga jël raw gàddu gi ci capital bi di Ndakaaru kenn contesté ko rawatina sax ci yenn ville yi gën mag lu ci mel ni Thiès ak Ziguinchor kenn contesté wu ko waaye ngay contesté résultat jàmm yi ñu am fële ca Matam Kanel wala sax ca Kaffrine waaye lu ci mënti am Sénégal réewu benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. Nous sommes mais nous resterons fermes sur n'importe quelle position. deseen ji ba tey ci mbirum politique ñëw fi ci diwanu Saloum ak mandataire bu Benno bokku Yaakaar nek département fi ci diwanu Kaolack di Mohamed ndjay Rahma momé nak gannaaw ap jano taskatu xibaar yum doon amal mi ngi jaajëfal bu baax baax ñi nga xamné ñom ñoo nekké ci coalition Benno Bokk rawati na nak ñi nekké fi ci diwaanu Kaolack laata ko muy dal di yëkkate ay kàddoom di len di wo ngir ñu bolo doon ben ngir rek liggéey bi mëna continuer ngir ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi Macky Sall di wéy ba tey rek di am ndap fii ci diwaanu Kaolack moom Mouhamed rax ma la ñuy teewlu. fii ñu toog tey ci kaw la kilifa yi daje tey nga xam ne ku ci nekk sànni nga sa xeer biir combat bi mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ñu dem tey élection yàlla dimbale ñu coalition bi génn gagné département bu kaw la kon loolu jar nañu ñu wax ko jar na bu baax daje mais wane waat engagement gannaaw président Macky Sall tey ak ci ëllëg ak ci gannaaw wala combat yi nga xam ne incha moom lañu romb lépp li ci war def nañ ko waaye lépp lu nekk lu président Macky Sall nekk ak lu mën a doon ñun waa coalition bi gën na bokk yaakaar bu région de Kaolack ña nga ca incha allah loolu ñu ko koy seedeel suñu gudd yaa suñu bëccëg yi kenn mënu koo jël ci ñun kudul moom ca moom dong la ñuy déglu moom dong moo ñu def orientation démb ak démb ca incha fii fi nekk yëpp seen jëmm yi seen yi seen temps yi danañ ko def incha ci ginnaawam ba lépp li xam ne bëgg na ku ñu ànd ci ak moom lépp lu mu a jubbanti incha allah ñag ca caag moom lépp lu mu def d'accord nañ ci validé nañ ko avant mu koy bëgg ànd ak moom incha allah ba jàppale ko ba sébu imam ci réew mi mu yeggale ko ci jàmm loolu mooy engagement bi nga xam ne mooy engagement coalition Benno Bokk Yaakaar coalition boo ku Yaakaar bu département bu Kaolack wala sax bu région de Kaolack fa mu nekkoon démb ak barki démb ci président Macky Sall tey la ci gën a nekk ca incha allahu loolu suñ kanam la nekk nekk suñ ginnaaw di wax rek mboolem responsable yi ne nañ fas yéene takkaat seen jaaj yi ca ci terrain bi parce que liggéey terrain bi dafa métti képp koo xam ne li terrain bi laaj nangu woo ko cee jox bàyyi yoon wi nga may nit ñi ñu jàpp looloy dëgg terrain bi engagement la laaj ak détermination ak dëggu ak pas-pas Kaolack la ñuy desandi ba tey bi la ñu si ànd ki nga xam ne moom mooy Ousmane Noël Dieng moom mee nag daal dina yëkkati ay cadeau di ñaaxaat bu baax a baax ki nga xaman ne moom mooy maire bu Ndakaaru di baax te Barthélémy Diaz gannaaw nag ab génn goo xam ne amaloon na ko mu daal di yëkkati ay kàddu yu ñaaw daal di ko teg ci ndoddu Aminata Touré loole nag waral ba kii di Ousmane Noël Dieng daal di yëkkati ay kàddu moom itamit di koy ñaaxaat ngir rek mu xoolaat bu baax li nga wàllu communication moom itamit daal dina yëkkate ay kàddu itam jagleel ko ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall si tànnee fi nga xam ne mi ngi koy amal ngir rek mu xoolaat bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lay tànn moom Ousmane Noël Dieng la ñuy teewlu. c'est un grand monsieur bi nga xam ne respecté naa ko nag engagement am nag détermination am nag gëm boppam muy monsieur le maire de Dakar Barthélémy Dias respecté naa ko trop jox naa ko cër waaye dama dégg barki dem te muy exemple ñii di xoo ci moom mu saaga Mimi Touré lu la may ndam lu tax nga doon maire Dakar man dama la si respecté nag corona Barthélémy Dias dafa jóg di def social social moo yéegal nit def social loolu moo def maire Dakar ma gëm la loolu kontaan ci loolu mais nag boo ñëwee tey franchement wàcce sa bopp ba mu gën a ñaaw jël ab saaga di ko def ci kilifa politique jaru ko politique dafay jeex luñ yàgg yàgg dañuy dee luñ yàgg yàgg dañuy màgget té internet tudul internet internet la tudd lo fi wax lo fi jëf ëlëk dinañ ko tapé sa doomi tapé ko wala sa sëri tapé ko gis na papa ya waxon ndiw da ngay saag té saaga baaxul donc mon frère Bart lolu bu ko defati nak kilifa nga yaay maire Dakar lolu je pense nga wax ko ñaaw na ngay saaga ndaxte exemple nga ay junne junne nit ñoo top sa ginnaw di xol li ngay def donc li ngay wax war da rafet waaye nak xamna né terrain bi ba ngeen ci duggé ku ne xamna sa patron ci mbir mi nañu waxan dëgg mané parce que jakk amon na ku nekk duggu na ci terrain bi waaye ba ngeen dugg jógee terrain bi ñu bëri fu nekk fa ngeen dem wax nañ leen ne fii de Ousmane Noël moo ko na président bés bu jiitale na nga boo la jiitalee doo am problème nanaa la waxuma Kaolack waaye Dakar ba ma ko joxee ma téel la ko barki alxuraan ndax ni ma mel Kaolack lu ko raw laa mel Dakaru te su ma demoon soor laa wax nii jox la Ziguinchor Casamance jox la ko suñuy kër FM ñu wéyandi xibaar yi fii ci suñu kër FM gannaaw ba ñaari waxtu jotee ba toftal fanweeru simili ak juróom àddu nag wax ci réalisation yi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall da ko amal mel ni TER stade ak BRT ay. oto ak yeneen yu nu mel loolee nag teewul askan gi woon ko gannaaw ci élection législative yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal niki fanweeru fan ak benn ci weeru suliet gi ñu weesu loole nag tax na bi askan gi daal di yëkkati seeni kàddu àddu jëmale ci mbir mi nu mel ñu teewlu micro trottoir. ku nekk ak raison bi nga am li tax nga sanctionné ko am na ñoo xamante ni problème location bi moo leen sonal li ñuy am par weer ak boo xoolee bu ñu génnee seen dund ak location ñooñ ci loolu lañ ko sanctionné am na ñoo xamante ni ci dund bi lañ ko sanctionné dund bi dafa metti dëkk bi moo metti fan yee passé dugg naa benn restaurant ma ne ko jaay ma palaatu añ mu ne ma 800 la te moom rek moo fa nekkoon aw ma pexe ma jënd palaatu añ bi 800 fekk naaje woon naa ndekki avant maa jënd añ bi jënd naa ko ba pare ko am nga barkel mu ne ma waa ma ko defal mako ci client yi fa nekkoon di ma parce que dëkk bi mo metti limay wax dal maki manam na wañ dundu bi signal bi ñu woné ni moy woné ni askan bi dafa son ñom ku fajj seen bëbët nañuy xaar xam nga amuñu ci Mademba amuñu ci Massamba voilà donc problème yu tegloo yi ñun la infrastructure yi ngay gis ni c'est bien beau pour un pays qui se développe ou qui est en phase de développement mais askan bi ci bopam est-ce que développement bi yegg na ci kër yi c'est ça le problème les gens souffrent lu ñuy dundu moo metti li nous ñu def signal bi c'est valable pour l'opposition, c'est valable pour pouvoir donc que fi kenn ñun dal ku ñu fajal suñu mbébét nañu bëgg waaw parce que fi mu nekk nii wax dëgg yàlla peuple bi xolal chaque jour que Dieu fait y a des augmentations les denrées de première nécessité yu nit ñi di soxla ay borom jabot nañu mais ñun tay ji ak pouvoir d'achat bi fi nekk ni liggéey yu doxatul déjà y a le Covid qui est passé par là il a trop ébranlé les familles am des dislocation yu mu créé partout donc tay ji on essaie de recoller les les les morceaux donc tay ñun ku ñu dimbali ci la ñuy xaar. Sunuker FM. ñu àddu wéyandi wax ci leneen junjoon naa leen ko ci ndorteel ga ab waxtaaj nag la ñu amal ca diwaanu Saint-Louis loole nag ñi nga xam ne ñoom ki nga xam ne moom mooy adjoint gouvernement bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu développement di Modou Mamoud Diop ak i ñooñam ak ñenn ci autorités yi nga xam ne ñoom ñooy féetee ci diwaanu Saint-Louis loole nag ngir ñu waxtaanee lépp lu jëm ci comité régional bu développement nga xam ne moom la ñu jagleel ci enjeu ak perspective ñaareelu.

Nous sommes là suñu ndajem tey mii nag du leen lu dul door ñaareelu pàcc bi nga xam ni moo jëm ci wàllum implantation de lampadaires maanaam gën a taaral dëkk bi waaye gën koo leeral ci loolee lu toll ci téeméer ak fukk ak juróomi junni lampadaires fas yéene ko jëmmal ci miim réew yi di njiitu réew mi Macky Sall daal nay sàkku ci jëwriñ ji nga xam ni moom leen jégg wàllu énergie mu daal di wër li nga xam ni rek. moy rewum sénégal dem ci région yépp waxtaan ak ñi nga xamni ñoy ñooy meeru dëkk ya lépp rek ngir mëna woyal phase ñeel li nga xamni rek moy walum lampadaire yi nekk ci biir rew sénégal gannaaw lolé ap comité dañu ko tek bo xamni day ëmbu ñi nga xamni ñoy yëngu ci walum courant moy aner senelek ak yeneeni kurel li ñu bëgg moy rombu juroom benn at yi nga xamni mom lañ japp ni yoy lamp war mëna def mu wëy ba ñaar fukk ak juroomi at yo xam nii le la lamp durée boobu lay am. de telle sorte que noonu mbokk yi kon mu mel ni rek yegg si nañ si ñaareelu xaaju xibaar yi ñu koy doxe ak xibaaru biti wii bu nes kii see lay doon. xibaaru bitim réew yi may am mbégte bu baax a baax di koy dalal moom Soxna Roqeya Sall Roqeya maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye noo yeewoo mbaa yaa si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax. ibaadu bi rafet na de dama ko jàngal. <laughs> tuddee naa la ko ko jàngal. mi ngi noonu kon ya xibaaru bitim réew yi dañ koy doxee ca diwaanu Mali ak organisation bi nga xamante ne daal dina fësal ñaawteef yi nga xam ne ñoo ngi koy amal foofe ca diwaan baax te yoon defu ci liggéeyam. ah noonu la fa demee Ndeye Yaly ndax ab euh, organisation bu ñuy wooyee rek euh, euh, Tabila Pulaaku di ab kuréelu pël ñoo daal di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy takk der ya faree ca transition ba di xam ne rek ne dañu leen attaqué def leen lu métti métti teg ci rek li nga xamante ni moo di di leen jàpp teg ci di leen di dóor mu nekk ay tuuma yoo xamante ne ni rek teg nañ ko ci seen door du loolee tax nag autorité malienne ya ñoom daal di génn rek di wet di tuuma yooyu ba mu set rek seen i ay takk nañ lu ñu mel waaye nag ñi nga xam ne ñoo di kuréel googee dañoo fas yéene jug ngir tëla tirimal seen der waaye itam daal di jaxase li nga xam ne moo di réew ma moo nekk seen xel moo tax rek ñu leen di joxoñ baaraamu tuuma yooyee teg si daka ñoom autorité malienne ya ñu ngi leen di dànkaafu bu baax baax na jëf yooyee bu ñu ko amalaatee daañu am nu ñu ko digaalee ak ñoom waaye nag ñoom ñi nga xam ne ñoo di organisation boobee di euh, organisation culturelle bi nga xam ne ñoom la ñu wooyee pulaaku ñoom ñu nga ca njàqare bu rëy rëy gannaaw rek bu autorité maliyen yëkkatee seen i ay kàddu soxna Roqeya dañuy wéyandi li nga xam ne moom mooy xibaar yi dem ca diwaanu RDC foofee nag ab coppite yu yees la fa nemmeeku ci diggante RDC ak MONUSCO waa nekk ab am ndëgg sërëx boo xamante ne nii rek waa MONUSCO dañu ko amaloon foofee ci diwaanu République démocratique bu Congo tax rek ki nga xam ne moo di gouvernement ba daal di sukkandiku ci ndogalu kii di jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum bitim réew di xam ne rek ne ki nga xam ne moo ngàlloo lépp lu jëm ci ay uh, wax jëm ci mission ONU dafa ñëw rek yëkkati fa ay kàddu yoo xamante ne nii rek teguwut ci yoon waaye itam nekk kàddu yoo xamante ne nii amul bopp amul génn tax rek ba mu jur ay jéeya ci seenub réew tax sax ba fanweeri doomi aadama ak juróom benn daal di cay ñàkk seen bakkan loole tax na si ñoom toll ci fanweer ak ñaar yoo xam ne ci civil bi lañ bokk ñeent ñoo xam ne tamit ci casque ay ci casque bleu yi lañ bokk nekkoon ci mission ONU bi ak juróom ci ay doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ ci seen i ay bakkan eh, ci bët gànnaar ak jàpp bët saalumu eh, kifu loole nag moo tax rek ki nga xam ne moo di gouvernement wu eh, Congo bi daal di fas yéene dàq ki nga xam ne moo di porte parole ONU bi foofee ci diwaanu République démocratique bu kongo soxna Rokhaya dañuy jeexalee xibaaru bitim réew yi jël ab soroplaan rek dem ba ci diwaanu Espagne foofee nag ñu daal di nemmeeku ab tàngoor gu méttee métti goo xam ne tax na rek ba ñenn ci askan nga di ñàkk seen bakkan. Euh, loolu la ñu fa nemmeeku foofee ca diwaanu Espagne ab tàngoor bu taratar rek la ñu fa daal di nemmeeku euh, tax rek ay doomi aadama di ca faatu mu nekk nag ñetteel bi yoon rek ñuy am boobule vague chaleur foofee ci diwaanu Espagne bu ñu sukkandikoo sax ci jëwrin bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram foofee ca diwaanu Espagne moom ngay xamle rek ne waa institut de Santé Carlo III ñoo daal di génnee ab rapport di xam rek liy faatu ci doomi aadama ci taarixu euh, tàngoor bi bi nga xam ne mu ngi am foofee ci diwaanu Espagne mu ngi toll ci ñaari junni ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay doomi aadama yoo xam ne rek ñàkk nañ seen bakkan ci euh, weeru juillet bi nga xam ne rek génn nañ ko moom sax mu ngay xamlewaat ba tey di daal di def ab comparaison ci atum daaw jàpp atum daaw jéeg ne rek atum daaw toll ci juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom euh, benn ci ay doomi aadama yoo xamante ne nii ñoom ñàkk nañ seen bakkan waaye ci atum 2022 lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci doomi aadama yoo xam ne ñoom tamit ñàkk nañ seen ay bakkan waaye tam ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, kër docteur ñu ngay xam ne ne boobule tàngoor dina jur li nga xamante ne nii moo di ay faatu waaye tam ay feebar jëm ci doomi aadama yi foofee ci diwaanu Espagne nday yaari fal xibaari biti réew jànn fii buur ñaanal leen kendalu jàmm li lay ñaanal kendalu jàmm yow tamit soxna Roqia Sall kon mbokk yu mel ni boobule élément moo këmbal suñu jotaayu bëccëg kon di leen di jëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yi a féete woon euh, ci teewlu gi di jëfal bu baax a baax euh, Roqi Aïda Ka mi nga xam ne moom moo féete woon ci wàllu xarale bi Ndeye Yali Fall Cissé nekkoon euh, ci waxukaay gi kon mbokk yi lu nuyoo tàggoo wante lu jiwoo joxul jogu fa tàggatoo jot ci xibaar kon ñu ñaanal leen kenn dalu jàmm te di ko sàkku si yéen yàlla buur bi moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla na ko wasaare